fii ci diwaan bu Touba ndaw yu bëri song mi la métier di métiam dawalum saret fii ci dëkk bi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy yëngatu ci lu ñu mel fii ci diwaan bu Touba di xam xamle ne daan seen doole rek la jublu ci mi la métier ñoom ñi sax di xam xamle ne métier mi naam dañ ci daam seen doole waaye ay jafe-jafey neen la ñuy dund ci mi la métier. métier moom ñu ngi mi ngi nii rek arrêt baa nii gis nga ko ni mu demee dëgër ka ci sonal nañ ñu lool police yi lool. kuñ si jàppalee ñu jël sëcc ñu ñu dañuy liggéey bu ñu neexoon ay ndaw lan am nañ doole bu ñu neexoon ñuy dugg si carte yi di sàcc wala ñuy def leneen ak leneen defuñu ko danoo yor suñuy doole seet yi ñoo xam seet ñu joxe dépasse na si ñoo xam ne seen i yëpp si dañ koy lijjanti kon xam ne ñun dañuy liggéey suñu matériel lañ yor di liggéey waaw bu ñu gisee ku ñu jàppale nag ñu jël bu ñu gisee ñu jàppale nag ñu jël li bi mooy Euh, mooy maanaam sereet kii yi ñuy sonal police yi par des fois dañuy daje ak ñun jàpp ñu a dañuy sonal xam nga amu leen lii amu leen la jàpp leen di sonal booy yi quoi loolu daal moom nekk na suñ jafe-jafe te naqar nañu lool te bëgg nañ ñi tamit ku ñu ci indil ay saafara. ñu ngi nii rek nekk ci rek dóor rek di sabablu rek waaw bi moom si lay nekk moom daw dawul loo xamante ni ñu gënoon li ñu dañ ci nekk rek. amaguñ ci leen luñ jàpp moom si moom lañ gis liñ mën a jàpp si luy tene si ñun daal. rek bis bu nekk ak lu yàlla dogal rek mën ngaa xëy am tey 1000 francs mën ngaa xëy am suba téeméer it sans départ rek. waaw mën ngaa xëy di am 4000 mbaa 5000. lum ci man di doon dawalum sareet ndaw ñi taamu ko fii ci dëkk bu sell bii di Touba ñoom ñi kat di xamle ne ay jafe-jafe ñu ngi ko ciy dund bokk na ci seen digganteeg ñii ñuy woowee ay rim di oto yi nga xam ne amuñuy këyit te daw ci dëkk bii ñoom ñi kat li ñu xamle moo di ne seen i gaaraas lañu bëgg a nangu. ñu wax ay rim nii moo ëpp ci li ñuy dugg ci suñuy sareet parce que rim yi fi nga xam naa dañoo je jékki daal maanaam mobilisé wu dajawee xamuñu ab gaat moom kenn mënut na garas la kenn mënut lenn la parce que maanaam du du loo xamante ne bi ñu naan nee nag ñoom ay kéet la am léegi ay kéet lañu am pour wut seen gaar foofu pour defar rang ñun saret yi ñuy taxaw fii di fa rang fukki dërëm maanaam mais ñoom nag léeg-léeg dañuy ñëw fii di jël suñu client di dem ak moom boole ko buñ jógee ci kaw bu ñu bu ñuy ñëw dañuy daw di ñu di di ñu dawal dawal yoo xamante ne bi daal moom xam naa ne doy na waar moom lool sincèrement tey nañu liggéey. rim yi da ngay gis da ngay taxaw ni fii arrêt la diggante fii 500 mètres mënoo fee gis euh, arrêt sereetu mbaam arrêt arrêt arrêt euh, arrêt taxi arrêt rim taxam xam même 500 mètres 3 arrêt xam nga loolu moom c'est difficile loolu moom xam nga dafay metti waaw mais loolu tamit ñu ngi ci jàngoonte coono yu metti daal. ñoom ñi doonte ñu ngi fay seeni droit ci dëkk bu sell bii di Touba ba tax fi ñu nekk di buntu kër Serigne Touba gi ci Daaru naan ñu ci yëkkati kàddu di ñaan kilifa yi ñu wutal leen euh, seen bërëbu bopp. moom wax dëgg yàlla buntu kër sëñ bi comme ñi ñu fee taxawee moom sincèrement wax dëgg yàlla maanaam buntu kër sëñ bi ni ni ñu fay taxawee moom wax dëgg yàlla doonut loo xamante ne bi lu kii la ndax daan nañ am ñoo xam ne dañ fi daan ñëw mooy ASP di ñaan ñëw fii di di toppatoo sar yi pour ñu bañ a jege kër geeg yooyu yooyu yëpp daan nañ ko def ba moo tax maanaam ñu ñuy dajaloo fi ñëw fii léeg-léeg di fi dajaloo pour bàyyi buntu kër sëñ beeg yooyu muy libre ngir bu sëñ bi soxla woon tey bu ñu ñëw ci kër gi mën a fekk fii ñu taxaw xam ne ñun amul dara lañu fa loo xamante ne mi ñoo ngi koy jéem a def ci kër gi lu fi yàq ak yooyu. boo xoolee xam ne fii moom du place sax arrêt fii moom du place arrêt mais xam nañ ne ñi ngi bàyyi xel ne trop tard moom danañ fi jógee loolu moom ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ñoom ñi dee di yëngatu ci wàllum saret di xam le ne jamono yi di ñu ngi dégg ay kàddu yu ñaaw ñu jëmee ko ci ñoom ñenn ñi di xamle le ne ñoom ñi leen joxañ baaraamu tuuma di xam le ne yenn saa yi da ci am yu taagook seen sago loolu yi nag tax ñoom ñi ñuy ñaaw lu ni mel. waaw loolu moom ak si suñu garage bi ndax booy xool man naa am feneen ak feneen sax waaye boo xasee ba ne borom seere rek mën nga ni ñëpp nga si boole waaw ñi baax moom ñi ñi ñi ngi baax ba tey di def li ñu daan def mais ñi bon ñi ngi bon ba tey waaw fii moom arrêt bi amu moom ni nga ko gisee nii noonu la booy yëpp di def chaque jour toog ci sedd di bu suñ heure waaj jotee ñu waaj dem ñibbi suñu kër moom gisuma fi booy bi def nag suñu noonu dañuy liggéey daan suñ doole ah ñu koy def ñu jëm koo bàyyi rek laa leen wax ndax moom fi mu ñu koy defee dañuy yàq seen bopp yàqalaal ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey loolu laa am si lu ma leen wax ñoom ñu koy def te bu ñu sañoon tamit waaw lu ñu ni lu ñu ku ñu ci mën a dimbale tamit ñu jël parce que booy par des fois da nga gis benn booy boo xam ne doo xam fu mu jugee doo xam fu mu bàyyeekoo quoi mais da ngay xëy xëy gis ko ci sareet yi yaa ma gën a xam muy dawal mais loolu tamit wax dëgg yàlla ñu ngi koy naqarlu lu bëree bëree bëree bëri mais daal ku ñu dimbale daal ñu jël. lu mu ci mën di doon méccam dawalum sareet fii ci dëkk bu sell bi di Touba ndaw yu bëri soobu nañ ci lu nu mel.